Dakar. aussi moment fu ñuy duggaatee yaa ko wax sànq weeru koor ci lañ nekk. Euh, ñu gis ni jamono ji bu tollee fii comme sànq rek ñu ngi naan euh, koor bi ay 10 jours ci des ak wala 11 jours yu demee noonu. sukkaru koor day yëngal sëy yi. ban message ngay jàlle ci loolu. sukkaru koor day yëngal sëy yi. ak ñi mu mhm. yëngal seen sëy. ah bon ak ñi mu yëngal seen sëy. waaw goro yi ak seen wàll. Mhm. jabaru doom yi. ak yaayu jëkkër yi. Mhm. ak njëkk yi ku ci nekk ak sa wàll. Mhm. Euh, dafa am ñoo xam ne. Mhm. sukkaru koor intéressé na leen. ba ma pare. ñoo xam ne suukaru koor <laughs> da leen a intéressé. mais am na ñoo xamante ne dunduñu loolu. goro yi nañu bàyyi bu koor jotee. bu leen seen jabaru doom yi joxul suukaru koor. Mhm. ñu mere leen ci est-ce que am nañ ko. dëgg mhm. est-ce que seen sa sa doom jox na leen ko. Mhm. loolooy wax ji. da nga ci gis goro boo xamante ne. mais sa doom du ko jox juróomi dërëm. et amul lu mu la jox. lu mu la nar a jox njabootam taxaw mu jox leen ko. mais yow ci sa jëmmi bopp da ngay mer ne nu tax indi lu ma suukaru koor. la te amaana amu ko. te amaan bu ko andee sax nga xeeb ko ne ese woon na ma andil. bu ko andee nga xeeb ko. baadoo laa koy def. ndax nag olof day wax ne wërsëgu jàmbur ku cay wayaasee war koo gërëm. dëgg la. xamoo nu mu def ba yor juróomi dërëmam. Mhm. ba ñëw yéene la ko indil la ko. Mhm. mais gërëm ko ci sant ko ci. la. am na goro yoo xamante ne amuñu sax lu ñu joxe. waaye ña nga toog di la toggal di la ceebal di la xëyal di la guddeel di la bëccëgal mm-hmm. mais nee leen jaajëf mm-hmm. ndax jaajëf da yokk ngóora mm-hmm. mais goro yu ci bari dañoo doy waar te yal nañu yàlla musal ci goro bu doy waar ak goro buy matt di ëf beneen bi mooy boo doonee jeeg nag nekk ci kër boo laajee sa jëkkër mu jox la loo terale sa gor ak say njëkki ci koor mm-hmm. wala yàlla may la yow mii sa jëkkër même bu ko amul mm-hmm. yàlla may la loo jox sa njëkkeeg say say say sa goro mm-hmm. mais jox leen ko loolu du dara ki jural sa jëkkër ah. ëmb juróom-ñeenti weer boo ñetti at boo boole naq ak nàmpal bàddali ba sa jëkkër màgg ba nga gis ko ba bëgg ko waaye li la war nag mooy teralal ndeyam dëgg boo amul tisi yoo ko jox. Mhm. amoo xaalis boo ko jox dee ko wax wax ju neex. Mhm. waaye yàlla nañu yàlla musal. Mhm. ci goro bu naan goroom sama jëkkër nopp na ma. sama ceeb neex na. sama ginaar doore na sama lewal foor na. sama cuuraay xeeñ na neex. Mm-hmm. alors maman da ngay gis euh, ñi nga xamante ni euh, des fois dañuy tey ci kër. Mm-hmm. comme li ma lay wax rek euh, folklore jékki-jékki jël dara wala ay peñe wala xaay te ko di ko filmer naan maa ngi di ko jox sama goro amaana ñeneen ñi nga xamante ni ñoom amuñu ko. Mm-hmm. di di gis loolu ban message aussi ngay jàllale ci ñi nga xamante ne dañuy am ama léegi ñu dem di yóbbu ko ci sutura mais dañ koy vidéo yu demee noonu amaana am na kenn ki nga xamante ni mu ngi ci ci kër di sëy te moom amul loolu ban message ngay jàllale aussi ci loolu. ñàkk xorom. Mm-hmm. nit looy def te defoo ko ci simplicité. Mm-hmm. wacc nga ko. dëgg la. yóbbul nga sa goro suukaru koor. Mm-hmm. yow ak sa goro la. dëgg la du yow ak àdduna bi. mais jox ko ko ci pet. dëgg mooy di dimbali nit boo koy dimbali. ñi daan dimbali nit ñi. dañ daan def bu njëkk. dañuy toog ba guddi jot ba suuf sedd nga fëgg buntu kër nit ki jox ko ko ndànk. te kenn du xam ndax yaa ko jox. ci sutura la bokk. Mhm. te yàlla moo wax loolu. moo ne boo leen di jox nit ki wala ngeen di dimbali nit ki di ko may wala ngeen koy sarax ak lu mu mën a doon. Mhm. mais def leen ko ci sutura lu tax mënuñu naturelul. Mhm. looy def da koy def ci sutura. am na ñoo xamante ne ñi ngi joxe lu ëpp la ñuy joxe ñoom ñoo ñu di vidéo. wallaahi te boolewuñ ci wax. te vidéo caméra tàkkul. coow jubul. bal tàkkul leneen amul. kon nañ koy def ci sutura day am solo yaakaar naa ne message boobu am na solo bu baax njëkke yu aussi mhm. am na ci njëkke yu doy waar ah saj waaw <laughs> njëkke yoo xam ne mën nañu yàpp mën jën mhm. jabaru càmmeñ alal la rawatina jabaru càmmeñ bu baax téyal wallaahi mhm. jabaru càmmeñ alal la boo amee sa jabaru càmmeñ dee ko neexal dee ko naxtaan del kaf moom di reew ak moom te bañ koo indil problème. dëgg la am na jëkk njëkk yu baax. mais am na njëkk yu doy waar bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër. <laughs> waaye am na jabaru càmmeñ yoo xamante ne ndox mu sedd muy baxali nen la ñu. naa fekk nañu fumiste nañu rambaaj nañu mën nañu fen mm-hmm. waaw. macha allah wu dañ lay fekk ak sa càmmeñ. waaw ngeen juddoondoo. Mm-hmm. màggandoo yaroondoo. Mm-hmm. ñu ñëw dugg ci seen biir kër. doon kaani doon naa feq doon rambaaj doon fumiste ki nga bokkal ndey ak baay jigéen jóge fale rek xamoo fu mu jóge xamoo nu mu sosoo mu ñëw rek jaxasela ak sa càmmeñ mbaa mu jaxasela ak sa yaay mbaa mu jaxasela sa jigéen rafetul dëgg la yàlla nañu yàlla musal ci jeeg bu naafeq ak jeeg buy tas kër mhm. baaxul baaxul alors mais leptoo nag faytoo li nga lebal sa goroog say njëkkee. Mm. mbaa xam nga ne bu ëllëgee dañ la koy fay ba mu neex. ah pour jeeg ji. Mm. ku ciy sëy na xool ni ngay doxaleeg sa jëkkër ak sa goro bi jur sa say goro yi jur sa jëkkër. Mm-hmm. ak say njëkkee. Mm-hmm. leptoo faytoo <laughs> boo sëyee ni la neex. Uh-huh. bu ëllëgee yow it ñu fay la ko. Mm-hmm. boo jëlee say njëkke def moroom. jël sa say goro def moroom. di di leen wan ne leen seen càmmeñ wala seen doom nopp na ma te mënu leen ci dara. Mm-hmm. bu ëllëgee di nga màtt sa loxo wiccax bëccëgu nar a kàmm. tabarki Seydina <laughs> Muhammad <laughs> eh. am na ñu ci bari ñoo xam ne. Mm-hmm. yuuxu dina mës a jub fuñ ko foogewul. Mm-hmm. te yàlla nañu fi dégg bàyyi. allahuma amiin <laughs> alors aussi yaakaar naa ne à moment man à chaque fois comme ma la ko waxee damay am mbégte lool euh, euh, di la dal parce que euh, maanaam di ngay jàngale ci biir émission moom la ñëpp di xaar ci yow. Mm-hmm. fi ñu ñëwaatee saa nga ñu wax ci affaire yu seey yu demee mm-hmm. noonu. Mm-hmm. alors fan yi passé ñu gis ñu publier ndéegéey ak nga xamante moom mooy jëkkëram papa booy jinne dañoo tàggoo yu demee noonu. te na loolu dara amu ci mooy la dal ci cadre comme ni nga demee ci biir ci bijouterie bi ñu ne ya ngaa sàcc or ak yu demee noonu. yan message ngay jàllale ci nit ñi nga xamante ne dañuy toog pour di yàq nit rawat na ci sëy jaambur sëyu mhm. jaambur li ci war mooy nga maandu ci mhm. mbaa xam nga ne ñaari nit bu ñu bëggantee yàlla rekk moo mën ci seen diggante dara du doomu aadama mhm. ku yabu booy wax ci diggante ñaar ñu bëggante maandu ci wax ci loo xam ñaar ñu nobante. booy wax ci seen diggante. na doon lu rafet. mënoo ko cee wax. noppil. mais am na ci fumiste naaféq rambaaj yoo xamante ne. yàkkamti lu dul. diw de am na amoon na jëkkër waaye tas na wala diw de eh, am na jëkkër waaye sëy ba du yàgg wala moo diw de tas na sëy ba tas na yàgg na <laughs> te boobu xamoo sax la ca biir sëpp la la ko la ko ba na ci biir nañu bàyyi di dugg ci sëyu jàmbur yi yow am nga sa sëy toppatoo sa sëy te bàyyi keneen ak mm, sëyam <laughs> nit day maandu <laughs> est-ce que tamit maman nekkul benn genre jalousie maanaam benn genre soxor moom moo waral loolu à chaque fois nit bu toogee di sëy yow amoo looy bëgg loolu xëy di bind wala ngay wax ni diw am na problème fi muy sëy wala wala tas na est-ce que du bari na ci ñoo xamante ne pas bind sax binduñu mhm. waaye dañuy toog ci seen kër. Mhm. ba waxee ñu ne moo diw de amoon na euh, am na jëkkër waaye jëkkër ja fase na ko. xoolal loolu. waaye moo sëy ba de moo sëy ba de demul fenn. lu ci sa yoon. yow lijjanti sab sëy. waaw. mënoo toppatoo sa sëy toppatoo sëyu jàmbur. Mhm. xam sa gént xam sa gént moroom. iñaan dong moo ko waral ak soxor. Mhm. ak bon. Mhm. nañu bàyyi soxorante bi. ak iñaanante bi. yaa ngi sëy sa sëy bàyyil keneen mu sëy sëyam yoonam newul sa yoon nekkul ci sëyu keneen. concerné wu la. tout court. <laughs> maman <laughs> yàlla xam nga bëggu ba émission bi. di jeex <laughs> euh, di jeex te te tax ngi guddee ak yooyu noonu. Euh, euh, am nañ mbégte loolu di la dalal la parce que da nga nekk suñu maman boo xamante ne à chaque fois dañuy ubbil porte yi heure bu nekk dañ la danañu bàyyi ba jour bi wala mu des ay quatre heures de temps ñu war a def émission. Mhm. ngeen ñëw doon yaakaar naa loolu sa mbaax moom moo waral nga ñu koy defal. di la bàyyi nga tàggatoo ak mbokk internet Feeling Dakar TV yi doon seetaan. Mhm. ak ñi nga xamante ni sopp nañ la à chaque fois di la topp. waaw may topp kalaasun Soda Kébé geek Ndey Njaay ak mu xayri Dame Dieng kalaasu mhm. Nene Titi geek mhm. xale yi daal xale yi xale yi mhm. ndeysaan ak képp ku ma bëgg nag maa ngi leen di bëggee di kontaan ci ñoom di nuyu ci mel nii Mami euh, di nuyu ku ci mel nii euh, Ndeysaan Lat Sukaabe di nuyu sama sang bi di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan. wér ak wérle ndax moo ma yaatal nag bàyyi ma ba ma am xel mu dal. Mm-hmm. di nuyu képp koo xamante ne rek. Mm-hmm. yaa ngi seetaan Feeling Dakar di wax ne yàlla nañu yàlla may gudd fan ak wér ak wérle mucc ak mucc le yàlla lafal ñu cat làq ñu fa yàq yeggul ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa salaam waaw rek la mais daal di xam di leen xamal ne leen mhm. maam ak sàcc de <laughs> na na nañu xam ne lu ñaaw lu ñu mës a gis ci man rek <laughs> du doon man nañu xalaat na xëj na liggéey bi moo yegg foofu mhm. mais maa mag loolu <laughs> alors comme du ko waxee suñu ma nee na moom moo mag loolu mm. aussi comme ni ngeen ko waxee à chaque fois ah, dañuy am mbégte euh, di ko dalal parce que mooy li ma wax boo boo mais Sala Mbaw sama jëkkër la mm. moom maa ngi koy bégee mm-hmm. di kontaan ci moom mm-hmm. sama jëkkër jooju nga xamante ne mm-hmm. daf maa bëgg ba yemalewu maag dara chéri Aïcha bàyyi Mouhamed ak euh, Mm, ak kura. Mm-hmm. maa ngi koy bëggee di kontaan ci moom bu baax a baax sama rakku jëkkër la. Mm-hmm. mais sama xarit la. <laughs> Ah, mi ngi noonu comme ni ngeen ko waxee rek ah, man à chaque fois damay am mbégte bu baax a baax ah, di bokk moom palaato parce que boo toog moom di waxtaan day am ay messages yu bari yi nga xamante ni da koy eh, da koy jàllale nit ñi di ci jariñu mu nekk nit ku baax à chaque fois comme ni wax dañuy toog ba jour bi ñu woo ko rek dañoo bëgg émission danaa ni ñoo leen ndax yéen samay doom ngeen di ko ñaanal lépp li nga xamante ni bëgg na ko suñu borom defal ko ko lépp rek li nga xamante ni bëgg na ko suñu borom parce que li may wax ni dama ko dama ko cibee sama xol parce que maanaam ni ñu yombalee bi nga ko bëggee invité yaakaar naa loolu yombul jamono ji ci artistes yi alors euh, di di di wax ni Ali moo nekkoon ci caméra bi Abdou moo nekkoon mais yi nañuy simple nañuy simple surtout waaw surtout Khady Bara maa ngi koy nuyu ak ñi Ñing gis nga gars yi <laughs> nañuy simple fii dara jaru fi dara maanaa gi ñuy jaay. Mhm. dikk ko xëccu. Ah. ay artiste ah. ay nii laa mel. ay nii laa toll. te dara ma ci kanam ci ci xaama jox sa bopp <laughs> lan moo ko fi jar. waaw mhm. man waxuma sax ci cadre artiste ku mu mën a doon. Mhm. tey man su ma feebaroon. Mhm. ba nekk ci diggante dund ak dee. Mhm. mais dama lay soxla Abdou nga jël sa oto gaare ko ñëw yëpp ma yóbbu ma hôpital. wallaahi mais pourquoi pas bu ma Abdou woowee ma war a mën a jël sama téléphone wax ak moom naturellement. wallaahi lu tax mm. su ma Abdou soxlaa su ma jàppee ne ko dama jàpp su ma jàppul. mais bañ a taaw wi. Mm. <laughs> fi kenn du fi kenn du fi dara. waaw dëgg la nañuy simplal affaire yi oyofal ko. Mhm.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 yaa ngi nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar